mu ne nee nañu béréb boo xam ne juróom yi amu fa bul fa dëkk mukk mukk boo yeewoo dal booy dëkk dëkk bu amu juróom yi sori ko mooy faw na am kilifa goo xam ne mooy saytu mbir ya di ko awale ci aw yoon béréb bu amul kilifa rek bul fa dëkk ñaareel ba na amee àttekat bu maanu boo xam ne doomi aadama mënuñoo ñàkk amlante lu aajowoo àtte faaw kon na béréb ba am àttekat bu maandu boo xam ne bu nit ñëwee mu teg leen ci yoon ñetteel bi mooy foofa na am docteur bu xam faj nga xam ne boo wéradee mu mën laa faj ñeenteel bi mooy foofa na am marché boo xam ne loo soxla mën a waaxu jënd ko fa juróomeel nag daal mel ni moo ci gën a far mënta ñàkk mooy na am ndox béréb boo xam amul ndox rek sori ko booy dëkk daal dëkkal fu am ndox xam ne boo bëggee ndox rek daal di waaxu sàkk